salaam Amadou Dufati Sénégal pour yéen ñi may laaj ba xam Sadio Mané est-ce que sax Afrique votel nañ ko fii ci FIFA The Best bi te moo doon a devancer ak ñoom seen si votel nañ ko nag waaye kenn daal laa ràññee ne votel na ko ba teg ko ci kaw ah mooy Kalidou Koulibaly mais le reste moom mooy loolu mais est-ce que yëg ngeen ni sëñ Aliou Aliou Cissé troisième place de la teg Sadio maane ah après ba mu tegee Kylian Mbappé teg Achraf Hakimi deuxième place. ca troisième place la teg Sadio Mané kon nag ñun jaratul ñuy kaas jaratul ñuy rey suñu bopp di jooy su bëgg bëccëg su bëgg guddeeg guddeeg guddeeg su bëgg guddi mu ngi noone daal <laughs> moo tax jaaxal na képp kuy amateur de foot sénégalais sénégalais moom loolu jaaxal na leen ba maa leen gis ci commentaire sax lu ne ñu yokk ko bu naama waaye ah mooy loolu moom daal mu ngi noonu daal man damay faral di gis tubaab yi ak ñoom seen parfois da ngay gis joueur boo xam ne nii genre. ñoom xam nañ xel na ni kii moo leen devancer seen jour mais ñoom dañuy jiital seen joueur ca kanam a kanam waaw loolu dama koy gis tubaab yu bëree bëri ba ci France moom luñ leen mën a waxal mooy que ma ñoom moom seeni jour dañ leen a jiital ca kanam kanam ñooñu moom dun ay daw laaxu quoi vraiment loolu moom xam naa ko mais Kalidou Koulibaly nag Sadio Mané la teg ca kaw a kaw vraiment Sadio Mané la teg ca kaw a kaw xoolul Messi xoolul kenn suñu international sénégalais moom la teg ca kaw a kaw Sadio place moom la jël ci FIFA après ba mu jëlee coupe d'Afrique des nations jox ko Sénégal yóbbu Sénégal coupe du monde finalu daaw Ligue des champions ak Liverpool jël deuxième ci ballon d'or européen bi actuellement sixième place la jël ci FIFA je best bi gaynde njaay la jàmbaar la te it moom amul moroom yàlla na ko yàlla defal jàmm ak salaam amul complexe amul dara man de bu ma doon voté Sadio Mané laa lay tegal nii bu jëloon bu amul benn but ci saison bi sax ah, moom laay jiital ca kaw a kaw nag tubaab bi noonu la ñuy doxalee gis nga affaire bi football bi toll na foo xam ne nii xoolatuñu juste kase waaw mais tubaab bi jamono ji seeni intérêt la ñuy jiital xooluñu kii xooluñu kaa ah seeni intérêt kase David Alaba moom génn na nag bay leeral que ni li tax votelul ki ñu naan Karim Benzema moom Karim Benzema moom la votel waaw nag moom la bëgg te it gis na ne performance yi mu def macha allah te it ñoo bokk club moom la votel mais seen équipe nationale. ñoom ñoo votelul Karim Benzema moo tax vote boobu mujjee dem ci Messi loolu mu ngi koy génn di leeral yenn merengue yi di di di di am jaaxle ci le fait ñoom David Alaba votel ki ñu naan euh, comment dirais-je waa Autriche Lionel Messi fekk na ne moom Benzema la choisir mais majorité équipe bi ñoom ñoo choisir ki ñu naan Lionel Messi ba tax nag votam boobee dem ca Lionel Messi bu naam rasta Mbappé la jiital ca kaw a kaw teg Sadio Mané troisième place Ashraf Hakimi deuxième place mu ngi noone ku nekk ak say choix ak say gis-gis jàmm ci yéen ma leen di xaar ci commentaire yi nan ngeen gisee vote yi. ah Rigobert Song en tout cas les Sénégalais sont contents de toi vraiment les Sénégalais sont fiers de toi on te dit merci. Merci pour ton courage. Merci d'avoir choisi Sadio Mani, notre international sénégalais, pour le vote FIFA Zebes. C'est pas évident. T'as Mbappé Kylian Mbappé Achraf Hakimi Lewandowski et choisi Sadio Mané donc on te dit merci c'est ça qu'on dit frère africain il faut qu'on s'unisse c'est ça gars yi yi kii di Rigobert mooy coachu Cameroun bi moom nag ban koo joxee pour mu choisir ca FIFA The bi dafa jël Sadio Mané suñu international sénégalais teg ko ca kaw a kaw looluy jiital Afrique nag tubaab bi ñoom seeni intérêt la ñuy faral di jiital ah jiital Sadio Mané teg ko ca kaw a kaw pour même bu jëlul sax FIFA the best meilleur joueur bi mu nekk ci podium bi maanaam mu jege sax kii jël paie malgré gëm nañ ni Sadio mën na ko bañ a jël loolu du problème nag def fi loo xam ne ni keneen def ko fi waaw mu ngi noonu football coupe du monde mais jël na coupe d'Afrique def na lu am solo. waaw contribué na bu baax a baax ci qualification coupe du monde Sénégal nag moo dugal dernier penalty bi dernier penalty coupe d'Afrique moo ko dugal yóbbu Liverpool final coupe coupe coupe euh, Ligue des jël fa Carabao Cup Faya Cup bàyyiwul dara ñëw Bayern na sur le mu jël liñ naan super coupe euh, d'Allemagne bi contribuer bu baax a baax ci victoire boobu kon nag duñ ne sax da ko war a jël mais mu jege waaw ñun africain dañoo war di jàppale de suñu biir di voter kon nag Rigo Wersong en tout cas les sénégalais kontaan nañ bu baax a baax a baax ci yow ngeen remercier ma ko ci commentaire yi waaw ci croisam le fait que. mu tege à côté ñeneen ñi nga xam ne waaw mooy loolu jiital Sadio Mané waaw c'est vrai logique bokk na ci football mais bu dee logique rek mais am na droit teg Sadio Mané ca kaw a kaw nag Sadio Mané def na lu tax ñu war koo mën a teg ca kaw a kaw nag trophée mu jël ci année yi passé ak trophée individuel yi prix Socrates beeg malgré social la waaye jël na deuxième ci ballon d'or européen waaw coupe du monde képp la demul te Erling Haaland moom it demul coupe du monde et d'autres joueurs mu ngi noonee kon nag. jàmm ci yow Rigobert Song fële ca France nag ki ñu naan euh, comment dirais-je Noël Le Graët doon président fed doonoon président fédération française de football moom après ba mu jëlee kàddu yu ñaaw jëmale ko ci kan Zinedine Zidane bañ mettroon ko ak euh, mise à l'écart teg ko à côté waaw bu ko defee mu sori fédération bi nag kàddu yu ñaaw yooye euh, ki ñu naan Thiago Diallo Philippe Diallo moom moo mujje woon nekk ci fédération bi intérim waaye moom lañ fa gën a teg ba léegi nag kiñ naan Noël Le Gret dañ koo poussé woon à ce que pour muy démissionner mujj naa démissionner tey ci mardi bi finalement Philippe Diallo boobu franco-sénégalais boobu moo fa nekk ba ëllëg ñu def euh, élection ku jël raw